almasxuur dañ koy firee ku ñu ñàkk waaye dañ ci jublu ku réer maanaam ku dem te xamuñ ci moom dara dara jigéen bu jëkkëram jekkee jekki dem xamuñ ci moom dara dañ koy def juróomi xaaj mën naa am xam ne ni génnut réewum lislaam mi maanaam daal li ñu xam moom mooy ci réewum julit lu réew xamuñu fu mu fa nekk te yooyu jamono amut xeetu mbas maanaam xeet tawat ji wàlle ju xew ci yooyu jamono wala mu réer ci réewum julit te fekk na booba muy jamonoy mbas tawat ju bon juy rey ñu bare bari mbaa julit ñi seen bopp doon xeex mu demoon ci xeex ba nag gisaatuñ ko wala mu réere ci suufus kéefër xam ne suuf sa mu réere xamuñu fa mu fa nekk moom suufus kéefër la mook ñu ko jàppoon noonu yàlla yi jàpp ko moo kooku réer ci suufus kéefër ñooy moo àtte juróomeel nag mooy jullit ñi doon xeex ak yéefar ya ab jullit nag daal di réer noonu xamuñ ci moom dara fekk mu bàyyi soxna kon juróom yi mooy mafquudun fi bilaadil islam fi gayri zamanil waba ak mafquudun fi bilaadil islam fi zamanil waba ak mafquudun fi muqaatalatin bayna ahlil islam ak mafquudun fi ardi shirk wal asir ak mafquudun fi muqaatalatin bayna al muslimina wal kuffaar dañuy teqale nag noonu kenn ku ne lu soxnaam di def ñu jëkkee ki jëkkëram réer réeri ci suufas lislaam te fekkut liy wax mbas maanaam genn tawat ju bon xew ca yooyu jamono yooyu jamono bu ko àggalee dana ci teg ka nga xam ne dafa réere ci suufas lislaam waaye fekk nag tawat ju bon a bon ji rey ñu baree bari xewoon boole ca ki jëkkëram réer ci biir réewum jullit te fekkul genn tawat ji wax mbas xew ca yooyu jamono bu ko neexee toog rek néggandiku ba xam dana xam dara ci jëkkëram joojoom déet bu mënta toog nag rek noonu mu def li ñu wax dem ca àttikat ba su àttikat amee mbaa ca ilimaan ba bu ilimaan amee foofa mbaa mbooloom jullit ñi rek daje mu xamal leen li xew mooy jëkkëram dem na te xamuñu fu mu nekk xëy na demut réewum jullit ñi waaye xamuñu fu mu fa nekk su boobaa bu dee àttikat ba la bu dee ku mën a yore mbir yi ci jullit ñi wala boog mbooloom jullit ñi ñoo war a taxaw temm ci gëstu ba xam ñu mën a amee benn xibaar ci jëkkëram jooju bu ñu gëstoo gëstu nag ba naagu ni daal mënuñoo xam ci moom dara ñu seet bu fekkee jëkkër ja gor la woon ci yooyu jamono ndax boobu dañuy teqale gor ak jaam ñu àppal soxna si yenti at ne ko kon nag toogal yenti at mu ñu dikk ko ba xam dana si feeñum ndeet bu jëkkër ja doonee jaam it ñu ne soxna si kon toogal diirub ñaari at négandiku ko ba xam ci kaw nag ñaari sart mooy jëkkër ji bàyyi na fi lu mën di dunde moom soxna si ci diir boobu tey di wóor na ko ne moom du mooy yàlla maanaam dem bay njaaloo fekkee ne daal yooyu yaa daje na ca wóolu na bopp ci ne dox tànk caaxaan te jëkkëram bàyyi na fi lu mën di dundee kon bu jëkkër ji nekkee gor na toog ñeenti at di ko néggandiku ba xam bu jëkkër ja doonee jaam nag mu toog néggandiku ko yaari at mel ne sax ci buñ dee seet maslaa rek foofu gor ak jaam ñoo fa waroon a yemoo waaye nag dañoo rayoon ci na ko saxaaba yi defe woon moo tax ñu xàjjale gor ak jaam kee ñeenti at kee ñaari at su fekkee nag jëkkëram bàyyiwu fi lu mën a dundee kon mën na ne dañ ma daal di fase bu fekkee jëkkëram bàyyi na fi alal ju mën a dunde waaye daa wax ne moom mënta sàmm boppam ragal na ne faw mooy yàlla it nañ ko fase rek bàyyi ko moo gën muy mooy yàlla bu toogee nag ba diir boobee mat te xamuñu dara ci jëkkëram nag mu daal tàmbali idda yi ku jëkkëram faatu bu tàmbalee iddaw nag du mën a jëfandikooti ci alali jëkkër ja ndax dañ koo jàppe ne ku jëkkëram faatu ba mu tàmbalee iddaw te kon du mën a jëlati nag la muy dunde ci alali jëkkër ji ci yooyu jamono bu délai bi dee bëgg a mat nag bu ko neexee mu ne daay far toog rek di ko xaar du ma tàmbali idday faatu waaye nag bu xasee dugg ci tàmbali idday faatu moom du mën a wax ne day bàyyi idda ji te toogaat néggandiku ko mooy li ma doon wax léegi maanaam bu xasee tàmbali ci idda ji moom du mën a fawati ab dund ci alali jëkkër ja mu ne nag saa yu jigéen ji tàmbalee iddawu iddawu faatu gi yoon day natale ne yoon day tolloole ne jëkkëram joojee dem te xamuñu fu mu nekk fase na ko menn pase pase moo xam ne balaa wóor ba ñu ne sotti na dëgg-dëgg jigéen ji noppi ca idda ja ba am jeneen jëkkër ba jëkkër ji wéet ak moom bu amaatee jëkkër daal gannaaw idda ji ba jëkkër ji wéet ak moom pase ma yoon nattale woon maanaam tolloole woon booba lay door a dëggu bu wér nag ñu jàpp ne am na bu wér a wér ñu ne nag nattale gi yoon nattale pase moomu dana faral di amal njariñ jëkkëram ji njëkk joojee bu dellusi waatoon ndax bu fekkee jëkkëram jooju laata muy réer da ko fase woon ñaari pase bu dellusee fekk moom bi muy iddawu yoon nattale woon na ne jëkkër ji fase na ko meneen muy ñett mu dem ba am jëkkër ñaareel ba mu wéetal moom ñu ne ñetteel boobee wér na am na bu wér a wér kon jëkkër ñaareel joojee bu fekkoon daa faatu mbaa mu fase jigéen jooju ku jëkk ka nag muy jëkkër jëkk ji door a ñëwaat day mel ne kon bàyyi na fi soxna soo xam ne fase na ko ñetti passé mu amaat jëkkër ba jëkkër jë wéet ak moom mu mel ne kon mën na koo takkaat takk bu yees te bu ko takkaatee day mel ne bu mu sëy gu yees la nekk ak moom ndax moom fase woon na ko ñaar laata muy dem bi mu réeree yoon tolloole beneen fase muy ñett bu jigéen ñi demee ba am jeneen jëkkër ba kooku wéet ak moom ñu ne ñetteelu fase bi wér na wóor na jëkkër ñaareel jooje nag faatu mbaa mu fase jigéen ji jëkkër njëkk ji nag bu del si waatee day mel ne daal bàyyi woon na fi soxna soo xam ne fase woon na ko ñetti fase amaat na jëkkër bu jëkkër ji wéet ak moom ba léegi mën na koo takkaat te bu ko takkaat day mel ne rek ci bu mu sëy gu yées la nekk ak moom mun nag gannaaw bi jigéen ji toogee ca idda ja ba idda ja jeex mu wutiwaat yeneen jëkkër suñu xamee ne jëkkëram doojee kat feeñ na te mu ngay dund mbaa feeñ na waaye faatu na mbaa sax mu far ñëw ñu gis jëmm ji mu ne kon ndax daañu ko delloo soxnaam am duñu ko ko delloo ngay dellu ci àtte ba nga waxoon ci jigéen joo xam ne daa am ñaari kilifa yu góor kilifa gu ne may ko jëkkër te xamuñu kan moo jëkk maye ak kan moo mujj maye takk-takk ba nag mooy bu fekkee ne jëkkër ñaareel ji jotugut a wéet ak soxna si mbaa jot naa wéet ak moom waaye moo ko tey wóor na ko ne jëkkëram ci njëkk ji ñëw na mbaa ma nga ca barab sàngam mbaa faatu na waaye jigéen ji ci iddaam rek la war a toll iddaam war a gut a jeex yett yi moom dañuy moomale jigéen ji jëkkëram ji njëkk ja li tax nag jëkkër ji ñaareel ji ñu ne ko yaa ko moom mooy bi muy wéet ak moom xamutoon ne jëkkëram de ñibbisi na mbaa ma nga ca barab sàngam ji dund mbaa faatu na waaye idda ja wargut a jeex xamul ci woy dara mu daal di takk wéet ak moom kon jëkkër ji ñaareel ji yooyu jamono mooy féetewoo soxna sa bu ñu nee nag bu jëkkër ji njëkk ja faatoo itam waaye idda ji jeexagut dañ koy delloo jëkkër ji njëkk ja ka faatu delloo ko soxnaam lu muy jariñ mooy dañuy jàpp ne soxna si war na koo doon ñëw nag ca idda ja ba idda ja jeex te góor gi nga xam ne moo ko takk mu daal di koy araam faaw faaw ndegam takk na ko ba joteeg moom ci biir idda daa takkoon ne bu jëkkër ji njëkk ja ñëwee fekk soxna si nekk ca idda ja mbaa fekk na idda ja jeex waaye keneen takkaatu ko mbaa am na ko ko takkaat waaye jotiwut ak moom dara mbaa ki ko takkaat jote naa ak moom waaye moo ko tey wóor na ko ne jëkkëram joojee feeñ na mbaa boog ba muy jotee moom sax teyu ko xamutoon ne jëkkëram joojee feeñ na waaye nag takk ba mu ko takk ci boppam moom la yoon seet ne baaxut ñëpp dogu ci ne takk nga baaxut mboolem anam yooyu nga wees moom jëkkër ju jëkk ja mooy jëlaat soxnaam am rek ñaari anam yoo xam ne ci lañ koy féetale jëkkër yi ñaareel ji te loolu mooy takk ba mu ko takk bu wér la ci yoon mbaa bu dee takk bu baaxut it dañ caa wuute dugguwuñ ci ne baaxut bu ko takkee daal takk boo xam ne bu wér la mbaa boog su baaxut it ñëpp masi wuñ ci ne baaxut ba noppi nag mu wéet ak moom te xamutoon ne jëkkëram njëkk ja feeñ na ñaari tomb yooyu rek lañ koy moomale jëkkër yi ñaareel ji tomb yoo ko jiitoon yëpp nag ñu delloo ko jëkkër ju jëkk ja masala yoo xam ne borom muxtasar da ko indi woon moom mi nag mu indi juróom ya bàyyi ñaar ñaar muy ay masala yoo xam ne dañoo xool ab sëy ba dindi ko ndekete doomi aadama ñàkku ñàkk xam kumpa rek a tax waaye ku xamoon kumpa yi doo ko dindi ndax na meloon baaxoon na ñu nag jëkkër ji yees ca gisu ko ko bàyyee dañ koy delloo ka ko jiitu woon muy falaata fóotu bi du xoolin bi mu njëkk wax nag mooy jigéen ji ñu tàggee ko jëkkëram ne ko sa jëkkër faatu na moo xam ne ko xibaar ne ko sa jëkkër faatu na ñu maandu lañu wala maanuwuñu waaye moom daal dégg nañ rek jëkkëram ji faatu na mu daal di iddawu daal di wutaat yeneen jëkkër far nag jëkkëram joojee ñibbi si mbaa ñu xam ne ma nga ca barab sàngam di dund kon su fekkee jëkkër ñaareel jooju jot naa wéet ak moom ba am ak moom ay doomi doom itam du tax ñu ne ko yaa ko moom faaw ñu delloo ko jëkkër ju jëkk ja ba tey sax bu fekkoon ne àttekat bi moo àtte ne jëkkëram jëkk ja faatu na te fañ ko sukkandikoo mooy ñaar ñu maandu ñoo seere faatu jëkkëram joojee gannaaw ba nag lekkete yàlla xam kumpa waaye ñaar ñu maandu ña la ñu seere woon demewut noona loolu nag du yàq dara ci seenu maandu ndax maandu teewut a seere loo xam ne da nga caa juum baa nga jaawale ca kon attekat bi atte ne ne ñaar ñu maandu ñii seere nañ ne jëkkëram faatu na moom jigéen ji mu daal di iddaw wutiwaat jëkkër gannaaw ba nag bi mbir ma leeree ndeke jëkkëram ci njëkk ja faatu wutoon kon doonte jëkkër yi ñaareel ji jot naa am ak moom ay doom it du tee dindi ab séyam delloo ko ku jëkk ka bu ci topp nag mooy jigéen ji wax ne sama jëkkër dama bàyyilul ab dund boole ma ko kenn jàmbat ko ci kanam yoon ba yoon ne ko wax nga dëgg daal di koy fase dinañ ko waxe woon ci gannaaw gannaaw ba nag jëkkëram ñëw leeral bu baax ne moom day mi ngi ko doon jox dund te ci diw la ko doon jaarale mbaa diw la ko boole loon moo ko daan jox te mi ngi nii wóor na ko ne daana ko jox te gis nga ne soxna si moom layoon na ci kanam yoon ba wax ne sama jëkkër bàyyil ma ab dund ba yoon fase woon ko nag mu iddawu wutiwaat jëkkër waaye nag jëkkëram ñëw na saxal na ci ay seere bu wér ne li mu wax mu am su boobaa faaw ñu delloo ko soxnaam si jëkkër yi ñaaral jooyee mu amaatoon yéet ak moom ak am ak moom doom ak ñoo ci yam du tee rek ñu delloo ko jëkkëram ji liñ ci teg nag mooy ke jëkkëram demoon ba dele ba jeexee ba mu tàmbalee iddawu iddawul faatu ja te bul fàtte ne da cee boolu ténj li ñuy wax ñaawlu ba mu tolloo ca biir idda ja am ko ko ca takk ñu ne ko xam nga ne loolu yoon nanguwu ko ku toll ci idda nga di ko takk daal di tas nag sëy boobee sëy kooki ko takk ca idda ji daal koy tas fa saasa daal di wax jigéen ja mu dellu ci laablu ba mu laabloo nag bu wutaat jëkkër yi ñetteel ñu seetlu ne dañ ne woon moo ko takkoon ci biir idda ci saahir rek la nekkoon ci idda waaye buñ ko toppee dëgg-dëgg ci ni yàlla doxali mbir yi ba ko kookoy takk fekkoon na jëkkër ju njëkk ja faatu ba idda ja jeexoon nga xam ne kon ci baatin moom sañoon na ko takk ci zahir nag la defoon lu aay mu ne ko it jëkkëri ñetteel ji nga xam ne moo ko takkaat joteeg moom du ko rawale jëkkëri ñaareel ja dañ koy delloo jëkkëri ñaareel ja dana jigéen joo xam ne it daa jekki-jekki waxal boppam ne sama jëkkër daa faatu daal di iddawu wutal boppam jëkkër mbaa ñaari seere seere na ko sa jëkkër faatu na waaye dañuy ñaari seere yu maanduut ndegam nag benn bi moo jekki jekki ne sama jëkkër faatu na daal di wut jëkkër rek bu ñaareel bi tam ñaari seere seere ne jëkkëram faatu na waaye dañ di seere yu maanduwut yoon day wax ne kon jëkkër ji mu wut kenn du ko ci bàyyi dañ koy tas mu ne nag buñ tasoon sëy boobu gannaaw ba nag ñu xam ne moom yàllaa xam baatin ba muy wax ne sama jëkkër faatu na boo wut jeneen jëkkër ak bi ñaar ñu maanduwut seere ne jëkkëram faatu na mu jàpp ci loolu ba gannaaw ba mu wut jëkkër ñu seetlu ne ci dëgg-dëgg noonu la demee woon fekkoon na jëkkëram faatu woon na ba idda ja jeexoon na ba ci yooyu jamono sañoon naa wut jëkkër na mu ko wutee ndegam saxaat na ci bu leer ci ñu maandoo maandu ne ba kooku ñaareel koy takk fekkoon na jëkkëram ci njëkk ja faatu ba idda ja jeex ba ku ñaareel ko takk dam ko takkoon ci aw yoon la tegu woon ci baatin amaat gi amaat beneen jëkkër muy jëkkër yi ñetteel duñ ko ci bàyyi dañuy tas jëkkër yi ñetteel ji doon te wéet naa moom daal koy delloo jëkkër yi ñaareel ja mi ngi wax muddatu taamir dañ caa wuute li tax na ñu gën a dëgëral juróom-ñaar fukki at mooy la addis ba ne xan abi hurayrata anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala amaaru ummati maa bayna sittina ila sabaina teewul nag yenn ci kilifa yi moom wax juróom-ñett fukki at am ñu wax sax juróom-ñaar fukk ak juróom te wuute am na ci waaye moom daa sukkandikoo rek kon ne muddatu taamir mooy juróom-ñaar fukki at kookee réer dañoo mayoon soxnaam bu toogee ba teel bañ ko àppal jeex mu wuti jëkkër gannaaw bu idda woo idday faatu ndax bañ koo teg lu diis ci moom mu ne waaye nag su fekkee kooku réer bàyyi woon na fi li ñuy wax umu wala jaam bu jigéen boo xam ne am na ak moom doom nga xam ne bu faatoo la war a gore duñ mën a daal di goreel umu wala boobee ndax àtteeguñ ne kooku réer faatu na dañuy dem ba seet ne fam toll woon ci dund bu fi nekkoon ba léegi war a am juróom-ñaar fukki at ñu door a atte nag ne faatu na attekat day atte loolu dogal ne faatu na ci atte umu wala tam boobee nag door a gore ala yi ci réer itam ñu door koo séddale miraas ko waaye nag bi si bi àttekat bi àttee ne dogal naa ne kooko faatu na ku fekkoon nga bokk ci ay donoom rek yaay doon waaye ko koo xam ne jot na fee faatu du doon soxna soo xam ne itam dafa toogoon dele bañ ko waxoon daal jàpp idda wutiwaa jëkkër jeex na moom it du bokk ci ñi doon dañuy seet rek bi si bi nga xam ci la àttekat bi àtte ne dogal naa ne kooko faatu na ñu seet nag ku ko war a doon rek doon ku ko warta doon doo doon soxnaam yooyu daal lay tax ñu mën koo doon mooy gannaaw ba ñu xam ci lu wóor ne laata ñuy def idda joojee bay wutiwaat jëkkër fekkoon na moom seen jëkkër jooju faatu woon na buñ mujjee xam loolu moom ñu daal di war a doon feneen nag ku ñu jàpp ci jullit ñi te mën ñoo xam ci moom dara mu bàyyi fi soxna soxna sa kenn du ko àppal dañuy bàyyi rek ba jàpp ne moom moomee bu fi nekkoon ba léegi war a am juróom-ñaar fukki at ni nga ko dégg léegi li fekk rek bàyyil na ko fi dund te soxna si mën naa téye boppam du dem di mooy yàlla fi ñu bàyyee bàyyi ba ci këram jooju ñu jàpp ñu seet ne bu fi nekkoon ba léegi am na juróom ñaar fukki at tey lu itam ba àttekat bi àtte ne dogal naa ne kookee faatu na soxnaam dal di iddaw ñu daal di miraas itam ku war a doon doon ba tey ku réere ci suufu su kéefarit loolu mooy àtte bi lay taxit ñu téye soxnaam ne ko toogal néggandiku mooy rek bàyyil na ko fi ab dund te soxna si wóor na ko ne mën naa sàmm boppam du dem bay mooy yàlla dañuy seet ba mu fi bàyyi ko nu mu toll woon ci ay at ci dund ñu dem a dem ba mu am ci tolloole juróom-ñaar fukki at yu mat fëkk ñu dem ci àttekat bi nag mooy dogal ne àtte naa ne kooku faatu na soxnaam daal di iddaw iddaw yi faatu ñu daal di miraas itam gannaawam ku war a doon doon bu fitna amee diggante jullit ñi ba ñuy xeex jigéen joo xam ne jëkkëram dem na ca xeex ba bañ gis bañ gis ko mu taxaw ci sàppe say xeex bu xeex bi jeexee rek buñ ko gisut daal di jàpp ne faatu na daal di wax soxna si mu iddaw iddaw yi ku jëkkëram faatu ñu daal di miraas daal di séddale dono ba bu fekkoon ne nag génnoon na ne day dem ca xeex ba waaye nag gisuñu ko ca fa ñuy xaree ne moom mii mi ngi ci xare bi dañu génn rek xamaatuñ ci moom dara dañ koy jàpp ne kon kenn la weesu woon mu réeree ci suufas lislaam ate ba nga waxoon léegi rek moom lañ cay topp bu fekkoon ne xeex dafa am diggante jullit ñëpp yéefar yi soxna si nag jëkkëram dem ca xeex boobee ci ñu waxee ci yaxu téere bi moom buñ gisul jëkkëram doo ñu koy gëstu ba xam daañu xam ci moom dara am déet buñ gëstoo gëstu xamuñ ci moom dara nag ñu door koo appal am at bu toogaate at xamuñ ci moom dara mu door a iddaw nag iddaw yu faatu ñu daal di miraas itam ñu war a doon doon waaye daa am ñu ne du ñu bàyyi ba seet ba naagu door a tàmbali at ma bu yëgalee rek kilifa ga réeru kooku rek la ñu boole gëstu gaag tàmbali at ma itam bu at ma matee rek soxna si daal di jàpp idda ñu daal di miraas bu yàlla dogalee xeeti tawat yi wàll yooyu day gaaw a rey xew mel ne peste ba xewoon ci ay jamono mbaa rek beneen tawat bu mel noonu ku ca jëkkëram nekkoon ca foofee tawat ji bon ji amee ñu dem ba tawat ja jeex te gisuñu jëkkëram jooja dañuy jàpp ne daa faatu rek ca tawat ja soxna si daal di iddawu ñu daal di miraas lam bàyyi ci alal